yaatu na fi mu ko mën a defee it ci biir senegaal yaatu na ñi ko soxla it ci biir senegaal bari nañ fim mu mën a demit fi ëpp bari na fu mën a demit fu ëpp xaalis fii bari na kon mbooloo yëkkatiwu ko xaalis yëkkatiwu ko yàlla ak mbokk kóllëre moo ko yëkkati kon ñu ngi koy sant ci loolu di ko gërëm di ñaan it lii yal na sax yal na yàgg ah du ñu leen du ñu guddal dañ koy bàyyi bu waxtaanee ba noppi li Cheikhul Hadj Abdou Aziz daan def te Thierno Bachirou mii Muntaga Daha Cheikh Oumar di ko def su amee gan daa iman daf ko naan noo bëgg loo bëgg ak noo ko bëggee mu ne ndax ku nekk ak ay itteem te kenn ku ne nag itteem danga nga ko cay dimbale ndimbal la moo di nga fexe ba bañ koo tardel ci benn soxlaam wala benn itteem kon Seydi Hamza buñ paree sëñ Babacar moo koy jottalil ay kàddoom mu nuyu wanteeg mbooloo mi su paree nag nu mu bëgg rek ñu defalee ko noonu te xam ne jotaay yombul jamono xat na ku dagg benn cinq minutes ci ci ci waxtoom may la ko rek mënatoo ko fay rawati nag muy sang di kilifa kon ñu ngi lay wax jazakumullahu xayran anta fi daarika fi baytik anta al muqim wa nahnu al duyuf fa tabarakallahu kon ñu ngi koy sant dëgg-dëggi cant yéen ñépp duñ tafsir dara li ñuy wax rekk mooy li njëkk a wax ne Cheikhuna Tijaani bés bii bu amee ku ko moom moom moo ko moom ndax xatmiya ak katmiya ci la ko ci yàlla teral ñaari teraanga yu rëy yooyu benn bi nit mën na cee wax ba jeexal keneen wax ci ba jeexal keneen wax ci ba jeexal ba yowmal xiyaam di taxaw te du tax mu jeex beneen bi nag kenn mënu caa wax ndax moom ak maamam ak yàlla la kenn amu ci accès kenn amu ci accès nit réyewu ko xam-xam ba xam ca dara xam-xamu yàlla la ak yonent bi ak Cheikh Seydi Ahmad Tidiane kenn amu ci accès kon yàlla may nañu sens léegi laa koy wax ak gan ñu fi ñëwoon ñuy waxtaan ma ne leen ah man àddina dala duma tardeel ndax fexe naa ba bokk ci taalibe tiijaan yi te taalibe tiijaan yowmal am du tardé kon nag duma nangu fële lijjanti naa ko fii lijjanti ma ma bañ a lijjanti fii duma ko def boo koy wax nag nit ñi dañuy foog ne dangay ngay exagérer mais du exagérer taalibe tiijaan day gëm li mu am xam li mu am Cheikh Seydi Ahmad Tiijaan yi du waxantu te li mu wax kutubu tariqa bi yépp bind na ko ñépp bind nañ ko ci garanti bu Cheikh Sidi tiijaan Tidiane garanti ay taalibeem ah ñun ñii nag képp ku fi Macky président Macky Sall woon yëkkati passeport diplomatique jox la yëkkati carte boo xam ne eh, passe-partout la tudd wala déet jox la yëkkati chèque bu def 500 millions jox la ne la maa yónni ci àddina bi foo mën a dem demal hôtel boo dugg bul fay joxeel carte bii rek mbedd moo jaar alkaati bu la yëkkati nga génne carte bi jox ko danañ la bàyyi wala duñ la bàyyi waaw ndem président de la république moo am boobu doole te ñun ñoo ko ko may dëgg la wala du dëgg ndax ñun ñoo ko élire ñoo ko fal mu nekk président de la république te bu guddee fan tuuti lii mu mën dootu ko mën yàlla na ko ko yàlla defal nag waaye bu guddee fan tuuti lii mu mën dootu ko mën waaw comme ñun am nañu ci suñ biir ku mën loolu wax naa ko fi àjjuma bii paase ma ne leen Xalifa Sàll am na sëriñ walla déet am na ndey am na baay am nay xarit waaye ca kaso ba kenn mënu ko fa woon jëlee de benn signature moo ko fa jëlee mooy bu président de la république ku weddi nag ne loolu yàlla amul ay awliya um yoo xam ne may na leen may gu day ni luñ bëgg ci moom mu def ko nax nga sa bopp te awliya yooyu ka jiitu mooy Cheikh Seydi Ahmad Tijaani huwa mi muddil mu yi wa huwa Muhammad sallallahu alayhi wa huwa abil abbaasi Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu kon loo weddil yàlla boo jiixee ci àddina rek fekk ko fi fa tabaarakallaahu loo bañal awliyaullahi di nga ko nangul awliyaau sheytaan yi kon ñu ngi koy sant di ko wax ne bésu maamam la ba tey jii ci bés yooyu la ñu nekk muy diggante démb ak tey wax nañu ne diggante xatmiya ak katmiya seen diggante am nañu ne ñetti fan la am nañu ne onze heures de temps la lu ci mën a am bariwul ci la jógee ci maqaamatul xatmiya yéeg ci maqaamatul katmiya xatmiya nag la nit ñi mën a waxtaanee mooy xatmul wilaayati kooku moom ku ne mën na ci wax waaye katmiya kenn mënu ci wax ndax kenn amu ci accès ku dul yàlla yonent bi ak Cheikh Seydi Ahmad Tidiane xatmul wilaayati gi nag kooku ku ne mën na ci wax ndax wilaaya la waaye bële nag domaine la boo xam ne diggante yàlla la ak yonent bi ak Cheikh Sidi Ahmada Tidiane kon euh, nañu xam li ñu am bu ñu xuloo bu ñu xeex bu ñu saagante bu ñu saagante ci réseau sociaux yi bu ñu bokk ci yooyu waaye nañ xam li ñu am bor bu set ma wax leen ko lii bu dakkul ku gis yàlla nga gis ko ku gis yonent bi nga gis ko ku gis Cheikh Sidi Ahmada Tidiane nga gis ko ku leen gisulit yow nga gis ko kon fa tabaarakallahu na lii sax rek ak fu ngeen ko mën a defee bër bu set ma wax leen ko fii du charte de dañ ko defar rek ngir nit ñi di fi ñëw di ko daje di ko def waaye feneen fu ko waaye mën a defee it am nga sañ-sañu dem defee ko fa fa tabaarakallaahu bu mu dakk rek kon Sidi Hamza ñu ngi lay sant Babacar après nga jottali kàddu yi ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla nag yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla yëgal ay maqaamam ci maqaamay maamam ba ca rasulullahi sallallahu alayhi ak i woy juram e, mooy taawu baayam yàlla bu ko kenn ëppale nag ci kër Cheikh Seydi Ahmada Tidiane yal na ci séddu ba doyal yal bokk ci ñey séddi yal na ubbi ku ubbeeku goo xam ne day ubbi waate nu mu ko neexe yaminan wa shimalan ndeyjoor ak càmmoñ ci kaw ak ci suuf ci xel ak ci xol yal na ko ko yàlla defal ci barke Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ci barke way juróom Seydi nu Omar barke ay maamam yal na ko ko yàlla defal mu yëg ne kontaan nañ dëgg dëggi kontaan dëgg nañu dëgg dëggi dëggi mbëgg ah liñ koy joxe kàddu gi nag moo di fii amu fi frontière këram la moo ko moom lu ko neex na wax kenn limité ko du ci kàddu du ci heure du ci dara su doon wax ba bër set ñépp toog di ko déglu ci moom rekk la aju nu mu ko bëggee ak fu mu ko bëggee noonu lañ ko koy defalee fa tabaarakallaahu kon dañ koy jox kàddu gi bi kat bi ci desit ah di ko ñaan lii bu mu géej saa suñ koy mën am rek eh, weer wu jot moo xam nu ko ko jotam maye rek ah, mu defal ñu ko ci mbaaxam nag fa tabaarakallaahu bi ci des balaa ñu koy jox kaddu mooy moom laajuma ko santuma ko ma bëgg ñu dajaleel ko hàddiya maamam man la ma koy jox seen yoon nekku ci waaye yéen ñëpp ku nenn ci barkeelu ndax barke la boo xam ne ku ci def sa dërëm defoo ko fenn fuy tuuru fa nga ko def kees la boo xam ne bu la ko yàlla joxee ëllëg danga ca bëgg te balaa ëllëg sax fii la ko yàlla di tàmbalee ak yow kon nag Thierno Ndoye na jóg ci góor ñi jigéen ñi kenn dajale ko foofu bu ngeen paree ngeen indil ma ko fii su ko defee nag bi ci des kon moom la ñuy jox kàddu gi su noppee nag nu mu doxalee ñun ñëpp nañu ànd ci noonu fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin tafaddal yaa cheikh mbokk yi si ndigalu Chérif Sidi Hamza Tijani mu ngi tijjee kàddoom si bismillahi di tamit tijji kàddoom bu sell di leen nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Chérif Sidi Hamza Tijani mu ne alhamdulilahi rabbil alamin mu ngi sant borom bi allah subhanahu wa ndax nee na ñu ngi ci bés bu tedd ci heure bu tedd ci ndaje mu tedd muy xadaratu juma muy la nga xam ne moo ñu war ñun taalibe yi mu ne mu ngi am ngërëm di wax ne mu ngi gërëm Cheikh Ibrahim mi nga xam ne di xarit di wëllëre bi nga xam ne li mu koy defal nii muy teraanga gi mu koy recevoir fii du tey la njëkk mu ngi koy gërëm si teraanga gi mu ko defal ba recevoir ko tey fii si kër gi mu ne du wéy di bañ di ko ñaanal ngir jëf gi muy jëf ci diine gi ak ci tarixa bi ndax xam na ne bépp lépp lu muy def mu ngi am rapport ak diine gi mu ngi am rapport ak tarixa bi ngir mën a yeete ay mbokk taalibe ak mbokk jullit ñi Cheikh Ibrahim wante it mu ngi amal cant tamit ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd moom di que gunge ci jàmm yàlla gi muy mbooloo mi nga xam ne taalibe yi nga xam ne ñi nga xam ne teew nañ tey ak ñi nga xam ne ñu ndax am ngànt mu ngi gërëm ñëpp ñu ngi leen di nuyu yéen tamit. mu ne mu ngi delluwaat cant si borom bi allah subhanahu wa taala di wa alamin ndax nee ñu ngi si. guddi ak jamono ya nga xamante ne dafa nekk jamono yu yéeme jamono yu nga xam ne yàlla daf ko jagleel Seydina Cheikh Ahmed Tijani Chérif ndax mooy diggante yi nga xam ne mooy diggante xatmiya ak katmiya te muy moment di jamono ya nga xam ne dafa am ijaaba yu bari yu si nekk mu ne li ñuy dund nii jamono jii du lu bees si ñun ndax day la nga xam ne moom la ñuy dund toujours ndax taalibe bi fu mu nekk mu ngi si lazimam mu ngi si charte yi mu ngi si diineem mu ngi si tarixam donc du la nga xam ne bees na si ñun mais day la nga xam ne chaque jour ñu ngi koy dund si at mi yépp te it muy wax ja nga xam ne wax ju la nga xam ne moom lay yàgg di wax mu ne taalibe yi ñun ñooy mottalinte si suñu biir ndax kenn ku ne yaay mottali sa morom mu ne sirdu tarixa bi rek mooy secret tarixa bi mu ne mu ngi ci maxaba maanaam cofeel entre ñun ak ñun ku nekk sa morom nga xool ko nga am cofeel si moom mu ne it secret wu tarixa bi surdu bi mu ngi ci jamiya ndaxte mënuñu toog te bëggantewuñu mu ne jamiya bi si bëgg ci mbëggeel la ci ci ci secret tarixa bi ci la bokk mu ne wante nga jox cër sa morom nga jox cër ku ne ni ngay joxe cër Cheikh Ibrahim noonu ngay joxee cër Massamba Ahmad Demba mi fi nekk mu ne ndaxte jëf ji nekk na fa nga xam ne taalibe bu nekk

incha allah rabbi mu ne mu ngi ñaanal nag xalif bu nekk ak muxaddam bu nekk ngir liggéey bi nga xam ne ñoom dañ ci nekk si diine bi ak si tarixa bi ñu doxal ko ba mu mat sëkk ndaxte ñoom dañu yor position ba nga xam ne dafa metti ndax li ñu war a doxal du lu yomb donc ñu ñu ñoom ñu ngi leen di ñu ngi ñaanal xalifa yi ak muxaddam yi toujours que yàlla mottali leen guide leen

ndax ku nekk yaa ngi gis lu jamono di di di ëmb da ngay génn jàkk ji sax ngay dañu ay fitna boo génnee fii fii ñu ngi feex yàlla ak ñun ak Seydina Cheikh ak Seydina Mohamed wante bés boo génnee rek fitna commencé ndax jamono ji moo mel wante mu ne jamono jooju ñuy dund donte diine islam ak tarixa cheikh rek mooy buntu way mucc bi di gërëm Cheikh Ibrahim ak yéen mbooloo ndax ak accueil bi ngeen ko jox tertu bi ak jox ko orme mu ne mu ngi leen di dellu di leen gërëm digg si jiital Cheikh Ibrahim di leen ci teg yéen mbooloo mi te it muy dellu kàddoom muy la nga xam ne bi may dalal di ànd ak moom ba léegi du dañ di ko wax chaque jour mu ne mu ngi ñaan suuf sii di Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. mu ne it mu ngi ñaan lii di barke Seydina Cheikh Ahmed Tijani Chérif mu bañ fi dañ ba ilaa yawmi diin fii si Sénégal. mu ne it ñi nga xam ne dañu war a mën a am lu bon walla lu ñaaw lu ñu war a yéene Sénégal. yàlla na leen yàlla soril Sénégal ba ñi nga xam ne dañu mën a am accès ci loolu mu ne ci barke maamam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke maamam Cheikh Ahmad Tijani Chérif radiyallahu ta'ala te it mu ne ci barke it xalifa yam ñi ñoom yépp asalaamaaleykum mu ngi mujjee kàddoom di leen gërëm di leen sant gën gi fay yàlla na yàlla fay gën di fay dee na ma wa rahmatullaahi salaam wa rahmatullaahi taala wa barakaatu. mu mel ni kon kàddu yi gàtt na waaye làmb na maanaa ak solo yu bari ci dàgge ak ñaax boo xam ne ñaax na ko mboolem ku nekk ci taali ci tarixa Cheikh Sidi Ahmed Tijaani waaye mboolem kuy jullit tey wax rek ashhadu an laa ilaha illa allahu wa ashhadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluhu ñu ngi koy delloo cant ak ngërëm nim ñu ko ñaanale ñu ñu ngi koy delloo ñaan di ñaan yàlla yal na yàlla dëgëral taxawaayam yàggal ay demam ak i dikkam te lëpp di diine ak tarixa ak mbokkoo na ko yàlla dolli kàttanal la mu wax ne wa ayyadnaahu bi ruuxil qudus yal na ko ko yàlla defal wa sabbit aqdaamahum yal na ko ko yàlla defal ci barke Cheikh Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu waaye ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa ak ñim ko ñaanee ci barke muqaddam yi ci tarixa bi yépp ak awliya yi ci tarixa bi yépp di sant ñépp nag ni mu ko waxee di gërëm ñépp suñu tuddee ñenn rek yóbbaale nañ ñi ci des imaam Youssou Guèye mooy imaamu zawiya bi niñ koy waxee ak saa bu nekk wala imaamu zawiya imaam Youssou Guèye wa minal muqaddami Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil fii Faas tabaarakallaahu wal imaamu waa ustaz Sidi Ahmed Mbay aydan min al asatiz fa tabaarakallaahu wa imaamu xaaji Malick Sey huwa imaam fi Senelec aydan yaamalu fi Senelec wa huwa fi imaam hunaak fi Senelec wal xaaji Madické Mbay Madické Dramé wa al shuyuux Cheikh Ibrahima Sow naam wallaay kaana rafiqu Léopold Sédar Senghor kaana maa Léopold Sédar Senghor daiman fi lsafar wa fi lwatan wa président Abdou Diouf aydan xatta fi dawlati président Ablaye Wade axasa كيف في لغة العربية رترت في دولة عبد الله ود كان يعمل مع ليوبولد سيدار سنغور وعبد جوف وعبد الله ود فتبارك الله رجل فاضل رجل فاضل كان مع سنغور لما ليوبولد سيدار سنغور ترك الوطن وتعطيه li président Abdou Diouf kaanama Léopold Sédar Senghor fi Tiwaawoon li tuxbirahu alxaaji Abdul Aziz wa fi aydan Touba fi Cheikh Alhamd Cheikh Abdoul Ahad Mbacké fa tabarakallahu huwa rajulun fadil alhamdulillah kaana maana wa ayna Cerno Li wa imam Diop walmuqaddamiin alxaaji Jóob wal asaatiis kulluhum alhamdulillah fa tabaraka allahu axsanul xaaliqin wa ashkuru aydan babacar hada kaana daiman maak walrafiqu l axar kulluhum mustapha mustapha gueye balde jaawo balde laysa laysa jaaw balde fi kuratil xaddam <laughs> balde wal imam Moustapha Boy aydan alhamdulillah humu talaamizu Cheikh Seydi Cherif Seydi Hamza Atijani tabaarakallahu faraxna gaayat alfarxi bi majiikum wa bi julusikum fiina alhamdulillah yusaayiduka daa iman yusaayiduka daa iman ana min alshahidin ana min alshahidin innahum yusaaidunaka daiman daiman yakunu maak alhamdulillah fi lxarakat wa fi lmashaqat wa fi kullu alhamdulillah ñoom ñii ngay gis li may wax mooy fu Seydi Hamza jëm ñooy ànd ak moom fu Chérif jëm rek ñooy ànd ak moom yéguñu naaj na yéguñu sedd na yéguñu mu ngi taw yéguñu dara lu mu soxla rek ñu ànd ci ak moom te damay wax nag ne Sénégal mën nañu gan waaye mënuñu dëkk boo dëkkee rek xam ñi dëggu ak ñi dëgguwul fa tabaarakallaahu waaye ñoom mën naa xam ne ku kunu min as-saadiqiin fa tabaarakallaahu kon ñu ngi leen di sant yéen tamit ndax bu ñëwoon amul ñu ko wéttali mën naa wéet doonte maa ngi fi waaye ni ngeen ko accompagner xol yëpp sedd nañ ci yal na yàlla taxawu leen te du ngeen ko rëccu nag du ngeen ko rëccu damay wax ne ñi ànd ak waa àddina sax ñu ngi jëriñu maanaam ñi ànd ak politiciens yi sax ñu ngi jëriñu ci ñoom kon ko ànd ak doomu waliyu ànd ak doomu Seexuna tiijaan yi fokk nga jëriñu soo bëggee di nga jëriñu boo bañee di nga jëriñu soo demee ci kasful xijaab Cheikh Sukayri mu ngi koy wax fa tabaarakallaahu kon Chérif Seydi Hamza ñu ngi lay sant bu baax eh, farax naa gaayatal farxi incha allahu nadu allah subhanahu wa taala an laa takuna axira jalsatin wa axira widain wa axira eh, widain baynana bi mahdi fadlihi wa juudihi wa karamihi wa bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam wa bi barakati mawlana cheikh sayd ahmad tijaani radiallahu anhu kon li ci des nag mooy كيف تريد كيف نفعل مع صلاة العشاء عندي عندي جماعة koy yeewi da ngeen may may ma wàcc gunge ko ñu xaar tuuti ngeen si kër gee des na suma juumul 10 minutes rek bu ko defee Hachim ngeen kër en étant là sikkaru gee bu ma ñëwee bu fekk ma gunge ko ma ñëw ñu julli gee ñuy wax ne rekk ñu ngi sant ñëpp ñun ñëpp ñu ànd ak dal ci ni mu ko waxe ànd ak yar ànd ak teggin soppante bëggante wóoluwante soppante bëggante wóoluwante kenn ku ne na ko moroomam gënal boppam laa yuminu ahadukum xatta yuxibba li axiihi maa yuxibbu li nafsi kon nag li mu wax yépp loolu rek lay loolu lay firi ci pour Chérif li muy eh, li muy wax yépp loolu rek lay wund nañu soppante nañu bëggante nañu dimbalante ku tane sa moroom ci xam-xam dimbale ko ku tane sa moroom ci alal dimbale ko ku tane sa moroom ci gis barab boo mën a liggéeyee bu mën a liggéeyee nga wax ko ko déy ko ko ndànk ah ne ko fii kat boo fa boo fa demee da nga fa jëlee as tuut wala da fa foraatu waaye ñu bàyyi di nëbbuwante bàyyi di tëruwante bàyyi di ëkkuwante yooyu yépp day tardeel ñooñu tarixa bi ndax seydina cheikh radiallahu taala an dafa ne su ngeen di lorante yéen taalibe yi man yonent bi ngeen di lor direct ndax yonent bi moo ko wax ne say saxaaba ñooy samay saxaaba say taalibe ñooy samay taalibe say àndandoo ñooy samay àndandoo say fuqara ñooy samay fuqara kon bu ñuy lorante rek man yonent bi la ñuy lor te ku lor yonent bi nag est-ce que di nga am jàmm ku lor yonent bi doo am jàmm ñun nag gëmuñu ko foofu laa jeexale suñ sama kàddu gëmuñu ko dañ koy wax nii rek yaquluuna bi waa afwaahihim maa laysa fi qulubihim loolu rek moo ñu sonal booy jël tarixa bi dañ lay jox charte yi daf ca bokk 23 charte la shurutuhum shurutu tariqati eh, salaasa salaasa wa isrin 23 la ñu jox la charte yëpp nga ne waaw ba pare di def li la neex kon seetal sa bopp est-ce que sa tiijaan sax dëggu na booy jël tarixa bi dañ la ne bul lor sa mbokkum taalibe tiijaan nga ne waaw luñ la wax nga ne waaw luñ la wax nga ne waaw bañ ne la jox nañ la tariixa bi nga xëy suba ba jant bi so sa làmmiñ bii yaa ngi ko teg ci goru deru taalibe tiijaan boo xam ne fasoo yéene wax ci moom lu baax ah duma ñemewu maa wax ne doo tiijaan de waaye sag tiijaan des na te boo ca continuer it borom tariixa bi dana la génnee ci tariixam ndax bëggul ku ñaaw jikko ku ci nekk tariixa bi tariixa choix la dañuy choisir ñi ci nekk kenn du ci indi sa bopp dañ la ciy indi ku ciy génne it wala iyaazu billaahi doo génnee sa bopp dañ lay génne kon tariixa la boo xam ne ku ci nekk chartam yi na nga ko appliqué lam laaj nga def ko te yem ca nag su ko defee lii buñ ko defee ku nekk tiijaan ñu nekk ko ku ko nekkul ñu nekk ko ku gis rasulullahi ak Cheikh Sidi Ahmad Tijaan yi nga gis ko ku ko gisul nga gis ko ku ci newul nag ah yaa xam ca la nga nekk lu mu nekk waaye ñun ñépp nañ góorgóorlu ci ndënkaane yim joxe ñu jéem a nekk ay taalibe Cheikh Seyd Ahmed Tidiane yu dëggu yoo xam ne duñ ci boole wax duñ ci boole dara dañ koy ànd ak jëf te jëf rek moo konte ca yàlla wax konte wut bu wax konte woon Sénégal avancé na bu yàgg ndax ñoo dàq wax ci àddina <laughs> wax kontewul fenn buñ la lakkalee discours nga foog ne àddina bi tukki na waaye ëf xabaa an mansuuran yal nañu yàlla defal sutura ñu jox ko mu ñaan fa tabaarakallaahu bu ñaanee ba noppi nag yéen bu kenn jóg yéen ñëpp ngeen toog may ma rek ma gunge ko bu fa tabaarakallah auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim alhamdulillahi rabbil alamin amin rahmaan rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim اللهم إنا نسألك بجميع اسمائك وصفاتك وما تقدس بهم تجليتك ومولاتك أن تيسر وتيسر وترحم وتعلم وتجعل سر سرك الظاهر والباطن في جميع الأمور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 kenn jóg de yéen ñëpp toog leen oustaz Sidi Mbaye balaa ngeen di sikka sax mottalil waxtaan bi